waxtu wa ñu noddoon salaatu dañ ko faral bind ci tableau yi ci jàkka ji boo ca tegee waxtoog fukki minit juróom du soreek jant bi fenk waxtoo nag nga jàng ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim julli ci yonente bi téeméeri yoon mais soo ko defee yàlla jox la wërsëg gu toon bala at maa jeex itam mu defal la wërsëg ci mbaax ma ngëneelam ba nga doylu bokk na ci jaglay bismillahi rahmani rahim soo yëgee ne mi ngi taw nga daal di jàng bismillahi rahmani rahim juróom benn fukki yoon ak benn te yéene ca yàlla saafaral la sa jàngoro kon yàlla dal lay saafaral jàngoro joojee ca bis boobee loolu day lu jàppandi la te bari njariñ mooy nga saxal bi su ne suba ngoon nga wax bismillahi rahmaani rahim fukk ak juróom-ñeent maanaam wax ko daal ñaar fukki yoon yu manqué benn saxoo ko nag suba ngoon soo ko defee seytaan du mën a am ci yow aw yoon te yàlla da lay musal ci xeeti fitna yeeg balaa yéeg xeeti laago yeeg lu ngeen ji suuf yéeg mboolem yooyu ñu ragal may la ñu weg la sànn ci yow cofeel ba nga xam ko la gis bëgg la mu ne ku bind bismillahi faneeri yoon ak juróom takk ko ci néegam néeg ba saytaane du ca dugg jinne du ca dugg yàlla da cay sotti ay yiw ak ay barke yu bare bare loolu de moom njëriñ lu yomb la te baax lool ba àgg ci lool lool mu ne bis bi njëkk ci weeru tam xarit boo ci bindee bismillahi rahmaani rahim téeméer yoon ak fukk ak ñett daal di koy takk baa nga def ko ci lu mel ne portefeuille mbaa kalpe mbaa daal loo xam ne moom doo faral di tàggoog moom di ko yore rek kon nee na yow ci sa bopp ak sa waa kër li xeeg yaa ngi dund dara lu bon mbaa dara lu ñu taamuwut du leen laal du la laal du laal sa waa kër loolu nag kon lu jàppandi la du itam day bu yomb la te am njëriñ lool xawam roog bee ibnul xaaj na ca téeram ba ne soo bindee bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon ak fukk ak ñeent daldi koy takk mbaa nga seet lu mel ni kalpe mbaa porte-monnaie boo xam ne doo faral tàggoog moom nga def ko ca biir fermi ko di ko yore rek saa yu nekk yàlla day faj mboolem say aajo may la yit worom doole yi ñëne yàlla dañ lay wet buñ la ñëne bay dal ci sa kaw amul mi mbindeef sax ci mbindeef yàlla yi mu la mën a lor li fay yàngeeg kayit yow takk ko rek yàlla moo lay sàmm ak sa soxna ak say doom ak sa alal dara du leen mën lor bokku nek ci njariñi bismillahi rahmaani rahim mu ne suñ borom ci bopam dafa waat ci teddam akuk màggam akuk tabeem ne ku wax bismillahir rahmanir rahim su fele ci fatiha ba fatiha ja mat yenn yoon dong rek waat naa ne koko dana ko jéggal ak sax ay bakaram su bari won lol ba ag ci goxi asamanit it na ko ko jegal lam defon ci lu baxit wat waat dana ko ko nangul duma lak mukk itam wowe mu waxe bismillahir rahmanir rahim tak ci lam làmmiñu wowe duma ko tanaku mukk ci sawara dana ko musalit ci bugaluk bamel ak bugaluk sawara dana ko musal ci tiit mu rëy moomee nga xam ne moom la nit ñi tiit te bis pencëk la ca aju waat naa ne dana ko yombalal na muy taseeg man ba bu ñëw ci man day ànd ak ñama xéewale sama ngërëm te ma yonante yi ak waliya ñu lay àndal bu dee ñëw ci man na ko bind bismillahi rahim te daggati araf yi nga bind baa mu beru bind siin mu beru bind miim mu beru mu bañ a taqaloo ba bismillahi rahmaani rahim ji àgg nga takk ko nag ku ko def day nee na yàlla defal la ngëneel lu réy réy lu ëppoot ne baa joor boobu soo ko bindee noonu ba muy ñaar fukki yoon ak benn buñ ko bindee ba noppi nag nga daal koy tim jang ca bismillahir rahmanir rahim ando yene ju sel ba bismillahir rahmanir rahim di mat téeméeri yoon nga fat nak kay do nga ko bindon tek ko ci alal jo bëgg rek mu yokku te barkel alal jo ko tek rek dana dal di yokko yokku te barkel barkel ba kawé sa ñortu mune batut ar rahman rek suku ko bindee juróom fukki yoon dal di koy takk da nga dal di am aw yu wu bare bare bare yalla fegal la it lépp lu ñu sib maanaam lépp lu ñu musal la ca mu ne arrahman baat bobu nee nañ ko saxo di jang jàng junni yoon gannaaw boo julik farata ba noppi te nag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 ثم أجيتي بسم الله الرحمن الرحيم